song ma dóor ay coups de sommation. mooy la bëgg a rey yow yaa ko ëpp yaa ko ëpp droit kon mën nga koo rey. mandat bi nga xam ne moom lañ may fale mandat juróom-ñaari at la. danaa ko yemale ci juróomi at. ndax li ñu bëgg mooy démocratie sax bi. TFM mbokk yi ànd ak ñun ci télévision Mutur euh, Futur Média ñi ngi leen di nuyu am nañu mbégte dellu si ak yéen ci seen spécial débat faram fàcce ni ñu koy amalee àllarba bu jot ci waxtu bi euh, tey ñu am mbégte bu yaatu ni ñu koy amee saa su ne di waxtaan ak faram fàcce actualité euh, muy tolluwaayu politique bi di ci ànd ak ay kàngam yoo xam ni seen xam-xam ci wàllu politique jàpp nañu ne màcc na ci ñu ànd ci ak ñoom tey am nañu mbégte ànd ci ak le député Oumar Youm le le ministre plutôt Oumar Youm nekk jëwriñ ji ñu dénk wàllu décentralisation. maître Oumar yum maître ñi ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Pape a ngi nuyu ñi ma bokkal plateau bi di nuyu sénégalais ak sénégalaises yi ñuy seetaan yëpp. voilà ñu ànd ci ak euh, directeur Barka Ba nga xam ni moom moo amee euh, lu jëm ci direction TFM euh, TFM info monsieur Barka Ba ñu ngi lay nuyu. maa fay Pape di nuyu mboolem spectateur téléspectateur yi ñuy seetaan. waaw ñu ànd ci ak Fadilou Mbacké Cissé moom itam ku ñu ku xam-xam màcc la ci wàllu décentralisation ba pare itam xam-xam màcc ci wàllu yoon ñu fas yéene ànd ak moom ci. ci spécial débat faram fàcce bi ñu ngi leen nuyu monsieur Cissé. ñu ngi leen di fay Pape Ngagne di nuyu mboolem ñu bokkal plateau bi. te di nuyu tamit ñi ñuy seetaan. waaw ànd nañ ci itam ak euh, ki amee kàddu parti démocratique Sénégal muy Babacar gay monsieur gay nuyu nañu la. waaw maa ngi leen di fay Pape di nuyu samay naataango yi ma fi toogal di nuyu aussi euh, sénégalais yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan pour euh, mbir mi leer ndax lu ñu war a faram fàccee la. d'accord kon nag mbokk yi mi ngi noonu dañuy daal di soobu ci waxtaan bi maa ngi wax léegi député Oumar Youm daf may yóbbu assemblée nationale député laa ko juume sànq mais daf may yóbbu ci assemblée nationale ndax euh, xam naa date bi jàpp ngeen ko muy 14 ni tey ci la parité duggoon assemblée nationale ci lañ ko voté woon kon am na ñeenti at li nga xam ni moom mooy euh, parité bi yi nga xam ni tey moom la ñuy moom la ñuy dund tey biñ ci tegee daanaka fukki fan ak ñeent 28 ci la dugg ci journal officiel alors. kon mën nañu jàpp ni ñeenti atam tey la matt ndax mën nañu àndandoo rek def bilan parité boobu monsieur le ministre. Pape maa ngi lay maa ngi lay remercier xam naa bilan parité dama xamul ndax man am na expertise bi pour def ko. Euh, en tout cas euh, li ñu constaté mooy parité bi quand même bi ñu ko voté comme ni nga ko waxee ñeenti at a ngi nii euh, def nañ ci élection législative. deux mille deux mille douze ci ci élection législative yi euh, andi woon na tuuti contrainte il faut le reconnaître pour ni ñuy defee liste yi indi na contrainte euh, essayé waat nañ ko élection locale 2014 indi na tuuti contrainte parce que man mi wax ak yow mandataire laa ci département Mbour euh, gis nañu ne bu ñuy defar liste yi xawoon na metti tuuti. Euh, metti woon na am na ñoo xam ne euh, toog nañ fa peut-être 3 heures 4 heures du matin pour jag-jagalaat liste yi parce que parité bi dafa xawoon diis mais contrainte la boo xam ne quand objectivement booy xool euh, dépassé nañ ko nit ñëpp presque parti yëpp xaw nañ ko respecté tey ci information yi ma am Sénégal 2772 liste la ñu déposé ci élection locale yi benn liste xam naa moo moo nekkul list paritaire euh, liste yëpp respecté nañ kon jàpp naa ne bu ñuy atte ndax loi bi mën nañ ko jëfe wala nañu ko jëfe ah gis naa ne même bu dee diis na ci doxalin bi même bu dee contrainte la ci ci appliquer ko euh, sur le terrain parti politique yëpp ak coalition parti politique yi bokk ci joŋante yi góorgóorlu nañu ba ba sàmmonte ak ak moom donc euh, jàpp naa ne donc day prouver rek bu ñu ci bu ñu ko gënee miin Euh, gën ko appliquer dina mën a dina mën a nekk loo xam ne luy tegu si yoon la. Euh, maintenant aussi euh, Sénégal aussi xam nga booy xool école bi léegi dafa commencer changer lu bari. jigéen ñaa ngi jàng di am ay diplôme di diriger ay grandes sociétés di diriger ay multinationales di def yëpp. am na ci jigéen ñoo xam ne sax ci ñoom nee nañ ñoom bëgguñu parité ñoom égalité lañ bëgg c'est-à-dire euh, bëgguñu ñu may leen dara parce que ñoom ñaanuñu dara góor ñi parce que mm-hmm. dañu dañu dañu dañuy remplir tous les critères pour pouvoir compétir euh, à égale dignité avec avec les hommes terewul objectif la idéal de société la boo xam dañuy bëgg société bi muy am le maximum de partage possible mm-hmm. euh, clivage yi ñu ñu ñu wàcce ko le maximum dina dina jànkonte foofu nag ak ay difficultés d'ordre religieux d'ordre culturel d'ordre sociologique parce que bu ñu ko dëkk rek ci religion di nga dem ci ay zones yoo xam ne peut-être du religion moo tax mais pour ñoom penc mi baat bi euh, góor moo ko war a yore. c'est pas ça n'a rien à la religion de, de souvent ah mais loolu nag ay réalité ay réalité locale la. Euh, que beaucoup de choses peuvent expliquer ci sunu culture. Mm-hmm. ci sunu doxalin ci sunu nangam. loolu lépp nag ay ay kii la rek ay jéego di Euh, pour man loi bi gën a baax du loi boo xam ne da nga koy imposer de manière obligatoire nangam nangam dañuy naxante rek xam nga loi contre mendicité am na ci Sénégal tere yalwaan carrément. terewul terewul ji euh, yalwaan sëñ Fallou mi nekk juriste xam na terewul gaa ak yalwaan. Mhm. loi contre excision am na Sénégal. Mhm. terewul. ñu ngi euh, ñu ngi ko doon def bon léegi ñu ngi koy commencer parce que mesure d'incitation ak. accompagnement yooyu di di naxante di expliquer euh, ba ba nit ñi xam ba d'accord ko moo gën a yomb. Mhm. Euh, nga bëgg ko imposer par la force parce que nit ki li muy dund di ci ngénte ay doomam di ci takk ay jabaram di ci di ci bâtir ses relations loolu moo gën a fort pour moom loi parce que loolu la gën a gëm. Mhm. waaw donc naxante bi moom dina ci am solo tolérance dina ci am solo esprit de dépassement dina ci am solo. d'accord jërëjëf euh, monsieur le ministre. Euh, directeur Barka lan nga ñu mën a wax ci ñeenti at yi nga xam ni tey jii la mat ci parité. Hmm. waaw Pape man j'ai un avis partagé ci question bi question parité bi am na li ci baax am na lu ci indi ay gàllankoor ci askan wi li ci baax mooy ci idée ci principe bi. bi kay président Abdoulaye Wade di ko promouvoir euh, idée bu rafet la ndaxte pour sargal jigéen ñi la woon xool seen poids ci société bi ne dañoo war a bokk ci instance de décision yëpp dañ leen war a jox cër bu mot sëkk donc ci ci idée bi ñëpp a ci ànd parce que ñun ñëpp xam nañ jigéen lu mu suñu société mm-hmm. diine wax ko aada wane ko seen euh, taxawaay ci réew mi wane ko donc jigéen lu mu am fii ci réew mi rek yellool na ko waaye ci niñ ko jëfee man dama ci gis ne loi bu naroon indi problème la te ci bu ba ba koy ba muy ba ñu koy tàmbali di ko wax man bindoon naa ci article pour mettre en garde que parité duñ ko appliquer mécaniquement parce que d'abord sur le plan juridique euh, ay juristes ñu ngi fii toog ñu bëri jàpp nañ ne dafa anticonstitutionnel cest a dire que. Mhm. le fait que nga ne. Mhm. fii góor fii jigéen fii góor fii jigéen. alors que constitution bi yemale na góor ak jigéen ba pare. daf leen yemale. Mhm. c'est-à-dire que parfois di nga bëgg def lu baax. ci ci ni nga koy defee mu am ay ay problème loolu c'est un premier euh, ci insuffisance loi bi la bokkoon euh, deuxième mooy amul consensus bu fort consensus bi euh, classe politique bi la laal ak association féminine yi. waaye suñuy kilifa diine wala suñuy kilifa aada comme ni ko le ministre waxee euh, impliqué wuñ leen nuñ leen waroon impliqué mhm. parce que dëkk bi dafa am aussi ay réalité nu muy doxee socioculturel dafa am ay mu neex ñu mu naqari dafa am lu ñu fi fekk mhm. am société nu muy nu muy doxee man dama jàpp ne président Wade derrière générosité bi dafa amoon calcul électoral calcul bi moo nekkoon boobu xalaat na ne. su defalee su defalee loolu jigéen ñi. Mhm. dinañ ko sargal moom tamit ñu ne ko sur le plan électoral. te loolu tey ci par rapport ak débat bu nar a sumb euh, mu nekk loo xam ne dañ ci war a taxaw. Mhm. cest dire que man dama jàpp ne homme politique. Mhm. Euh, association privée la bokk c'est-à-dire dafa dem partem parti association privée la euh, homme politique yi suñ leen tabbee ñu fal leen ay locataire lañ. ñun askan wi ñoo leen fal ay locataire lañ comme nit nu ngay demee nga loué benn kër nga abal la ko amoon droit def n'importe quoi xam nga la grande différence entre un homme d'état ak un homme politique pap xam nga lan la homme day xalaat prochaine génération mhm. suy jël benn décision mu xalaat lan la war a jural askan wi que les politiques bi lay homme politique danaa nan laay def rek ñu falaat ma mhm. wala mbir mii may def nii lan laa ciy gañe loolu mooy la grande différence ce qui fait que nit mën nga nekk ci état 30 ans. Mhm. ñu naan la homme d'état nga fekk nekkoo ko. homme d'état c'est pas le fait d'occuper le post ñu ne nooma le ministre mën nañ la sax tamit ministre d'état takkal la domb tànk bu diis fekk ci say jëfin ci sa comportement doo homme d'état homme d'état posture la. d'accord homme d'état posture la donc parité bi. donc parité bi. da jàpp ni am na ci lu baax loi non jàpp ne lu ma jàpp. Mhm. mooy que loi électoraliste la woon. moo ñu jural tey problème bu ñu am Touba. d'accord moo ñu jural problème boobu. Mm-hmm. te tey <clears throat> dëkk bi taxawee na taxawaay boo xam ne baaxul ci état bi parce que état bi dafa reculer. Mm-hmm. état bi dafa reculer dafa dafa euh, reculer par rapport ak affaire Touba bi. Mm-hmm. mais dafa reculer pour bañ a yee fitna ci réew mi. parce que kenn ñaanul fitna ci réew mi te ñun dañoo wet suñuy xalif généraux. yal na yàlla tax dëgëral seen taxawaay. ñoom ñooy suñu dernier recours suñuy dañ leen war a wormal dañ leen war a jox cër bu ñu leen war a jox yëpp bu ñu yellool waaye suñuy jël ay décision ci réew mi d'accord war nañ ci xalaat ëllëg d'accord voilà Fadilou dégg nga li nga xam ni moom la directeur wax ak li nga xam ni itam moom la Oumar Youm wax waaw daf ci tudd problème boo xam ni itam nee na moom moo ñu ko indil parité bi ci Touba lan nga ñu mën a wax itam ci ñeenti at yi ci ak li nga xam ne jàppee na ko problème d'accord ah si ñeenti at yi xam naa ne euh, pare guñ si di euh, xool loi boobu di loi sur la parité euh, yan njëriñ ak yan jafe-jafe la am mhm. si suñu réew ndax biñ ko voté léegi dafa mel ni jàll na fi si ay élection nationale wante daf mel nii si élection locale yi maanaam mooy test bi pour élection locale mhm. nga xam ne kon foofu dañuy daal di xam réalité loi bi dëgg ak légitimité maanaam ndax nekk na loi boo xam ne askan bi nangu na ko dëgg-dëgg muy légitimité bi te légitimité boobu day faral di sukkandiku ci euh, ànd gi nga xamante ne nii loi bi dina ko ànd ak gëm-gëmu ak dundinu euh, euh, nit ñi si gox yi mm-hmm. bu ko defee ñoom seen bopp dañ naan ndax gis naa ci sama bopp alors si wàllu politique ndax jigéen ñi seen bopp gis nañ seen bopp si loi bi euh, ndax xëj na yamale ci biir réew góor ak jigéen ñu yam ay ay ay yelleef ay wareef yam yam ay droit et cetera loolu day nekk loo xamante ni si am réew fi ñu toll nii daanaka kenn mënatu ko bañ au contraire waxuma sax waxu bañ mais lu nit ñi di défendre la mhm. waaw mais bu boobaa société bu nekk war na toog laaj boppam loolu naka lañ koy defee mhm. question boobu buñ ko posé mooy ne doomu aadama yi séq réew mi dañu war a toog waxtaan ci mhm. euh, gox gee gox goxaan yi ndax gox bu si nekk ak réalité toog waxtaan ci bu ko defee si kaw état bi dinañ xam loi bi ndax euh, méngoo na mhm. ak li société bi mhm. Mhm. bëgg mais bu ko société bi yëpp bëggee ndax si biir réew mi amul ñaar wala ñetti ruq yoo xam ne def ko fa dina xaw a indi problème bu fekkente ne loolu nekk na ñu xool loolu naka lañ koy régler donc loi defe naa saa yoo xamante ne ni ñu ngi koy. tabax kon mooy wax ni dafa manqué consensus maanaam déggoo bu yaatu. waaw mu ngoog. Mhm. parce que lu si bëri li ñuy xaw a euh, sonal si suñu loi yi mooy dañ koy xaw a parax paraxee jamono yi ñu ñu nekk euh, maanaam da ngay am benn objectif rek nga daal di si saa si euh, majorité bi nga am nga daal di koy utiliser rek pour loi boobu nga bëgg a jël nga jël ko. Mhm. te loi bi. maanaam loi bi si boppam du ab finalité dafa am loo xamante ne nii moom lay wut léegi loolu nga xamante ne day da koy ut moom si biir réew mi loolu doomu aadama yi ñoo koy dund mm-hmm. donc donte si système démocratie représentative la ñu nekk dafay war si processus yi nga xamante ne ni moom la ñuy développer pour di tabax ay loi ñu tijji ko yaatal ko ba nga xamante ne nii loi yooyu dañuy am légitimité bi war di nit yi societé yi nangu ko nangu ba ca war mu nekk loi yu dëgër yoo xam ne du yam rek si légalité ndax jàpp nga ni dafa indi problème Touba waaw xam naa ne fi ñu toll nii wax ji yëpp mooy listu Touba bi ndax euh, ministre Omar yu mu wax na ko léegi nee na 2772 liste yëpp daanaka benn moo si euh, mhm. euh, président moo respecté wul parité boobu waaw donc loolu day daal di indi ne kon am na benn gox boo xam ne xëj na waroon nañ bi ñuy jël loi sur la parité. ñu xool ndax euh, loi boobu dina mun a euh, appliquer wu ci ci dëkk boobu. ni mu ko waxee bu fekkante ne woon laaj nañ tamit kilifa diine yi. Mhm. laaj parce que. societé euh, société locale yi. maanaam gox goxaan yi. Mhm. daf si am yoo xam ne dañu fës si ne. dafa am ay légitimité religieuse mhm. wala ay légitimité traditionnelle yu fa ne te euh, gox-goxaan yooyu xam nañ leen bu baax mhm. bu ko defee ñooñu war nañ mun a waxtaan ak ñoom bu ñu demee bay jël loi yu mel nii. Mhm. bu ko defee bu ñu yeggee ba sa euh, cëppaandaw ga. du indi situation yi nga xamante ne nii. dañ naan nu ñuy def alors d'accord. Euh... monsieur Gaye Babacar Barka moom xam naa ne di nga ko tontu ndax boo ko dégg nga li nga xam ne moom la jàppee loi bi bi ko Abdoulaye Wade di def noonte wax na ni ku am yéene la maanaam ku ku ku ku généreux la ci loi bi waaye li mu gën a làq ci loi bi mooy wàllu politique jàppoon ni dina ci mën a am soxna yi eh, ngir ñu votel ko eh, bu ñu ci ñëwee nag gis nga ni def na ñeenti at lan nga ñu ci mën a wax itam. waaw maa ngi lay eh, sant bu baax Pape Ngagne di rafetlu jotaay bi jotaayu leeral la yaakaar na am na yu lënt yu bëri yoo xam ne laaj na ñu leeral ko. Euh, ñeenti at bi ñu tabaxee loi bi ak léegi euh, ci bu njëxtal gi maanaam ñeenteelu at bi ci lañ commencé di ko diingat am na sax ñu jogoon yëkkati kàddu ñenn ñenn fekk ànduñu ci waaye problème bi gëm naa ne du loi. ci parité ndax li tax dinaa ko indi de manière scientifique ñu xam ne nekkul loi bi mooy problème problème bi comme ni ko Cissé waxee la mooy particularité wu Touba ndax li tax loi bi bi ñu ko woteeg léegi expérimenté nañ ko fu ñu ko expérimenté muy ci wote lañ ko mënoon expérimenté parce que condition bi mooy fonction élective fu ñuy tànnee ay ñi ñu fal ci yiñ ko def yëpp jàll na ay lu ëpp ñaari junniy liste ci Sénégal taxaw man nekkoon naa mandataire comme ni ko euh, ministre yu mu waxee ci département ak ci commune awma benn jafe-jafe pour defar liste ndax jigéen ñi nga xam ne ñooy politique di falaate ñu ëpp góor ñi nga xam ne ñooy wut pal loolu mooy dëgg mhm. sooy wut nag ñu bëgg a pal te di ko wut ci jigéen walla ci góor dina yombul lool bu fekkee bëgg ngaa def liggéey bu rafet beneen bi mooy euh, bu fekkoon ne question bi dafa nekk rek parce que dafa am problème tey ci Touba moom ñuy lamis lamisé dinañ ko appliqué wala duñ ko appliqué loolu peut-être sama euh, xarit sama rakk ministre yum dinañ ci indi leeral léegi taxawaayu gouvernement bi mais du foofu rek la amee rëq-rëq ci ñu bañ a respecté loi boobu assemblée nationale bi ña fa ne du ñu ay sëriñ du ñu ay nitu aada ñu nekk ci ay institution république lañu taxawal nañ ko te respecté wuñu loi parité kon dafay mel ni volonté politique da ci am importance maanaam pour ñu nekk ci état de droit loo xam ne bu loi waxee ne lii la ñëpp mànkoo ci. Mhm. benn bi mooy ndax Ablaye Wade ba mu koy def. Mhm. dafa manqué woon nekk homme d'état man weesu naa débat boobu ndax loolu sénégal yi ñoom ñooy apprécier euh, ndax bi mu yore réew mi matee na ko pour toogaayu. kilifa lu tax ñu naan homme d'état wala dafa nekkoon rek toujours koo xam ne euh, ay gis-gisam mooy maanaam xool génération future koo xam ne dafa tabax ay téere di ci liggéey depuis cinquante-huit ci thèse di wax lu jëmale askan kanam di xalaat loo xam ne ba mu koy xalaat jàppaloo ne dina mës a nekk président la république kooku kenn mënul xool ne du xool vision prospective kuy wax di xalaat états uni d'Afrique kenn mënul xool ne amul vision prospective kuy tabax ay plan yoo xam ne dañuy naan kii day rêver est-ce que na ko fi defee mu koy mottali kenn mënul wax ne day xool li nga xam ne tey tey lañ koy def. Mhm. kuy tabax la case des tout-petits xale yi nga xam dañoo ndaw mu ne pouse bu ñu màggee seen i maas ñu raw leen kooku xalaatul ndax moom dina ko fekkee yooyu dafa nekk ay éléments yoo xam ne dafa doy pour wane ne. Mhm. Euh, kii euh, taxawal loi bi defoon na ko ngir askanu Sénégal gën a jëm kaw. daf fi xeex ci démocratie pour ay liberté daf fi xeex pour ñu am respecter euh, wate buy tegu ci yoon daf fi xeex pour ñu am droit de la marche daf fi xeex pour ñu représenter opposition am taxawaay ci réew mi daf fi xeex pour presse mën a taxaw ci réew mi combat yooyu parité da cee bokkoon maanaam fexe ba jigéen ñi ni ñu toll ci réew mi te benn jigéen moom da koy faral di wax da koo théoriser sax daf ne boo jàngalee benn jigéen mhm. effet bi c'est exponentiel mhm. maanaam njëriñ la boo jàngalee benn góor maanaam effet mathématique lay am maanaam arithmétique Mhm. da nga naan un plus un égale deux. égale deux. Mhm. donc kon Ablaye Wade vision am ci loolu. Mhm. Euh, weesu na mu am ci consensus ak ñi nga xam ne ñoom la intéressé ñan la intéressé woon. en réalité. mooy jigéen ñi ak góor ñi nga xam ne dañu am ñàkk ay dañ nar a ñàkk ay pouvoir parce que lan mooy jafe-jafe bi ci parité pour ñun homme politique égoïste que ñun om yi dañoo yaakaar ne bu ñu taxawee parité place bi jigéen di am te góor mënoon faa toog dañuy pousse góor jigéen dugg loolu mooy moo fi nekk mooy réalité bi. mais yaakaar naa ne dafay dimbale. dafa am lu ñu ma jàngal ci euh, maanaam philosophie wolof ñett ñi ñoo bokk jafe-jafe. Mhm. mooy sancaan mooy sañc mhm. kër dëkk wala lu bees œuvre pionnière wala mooy toxu maanaam nga bëgg a jógee sa dëkk bi dem dëkk ci beneen dëkk wala nga jóge ci néeg bi bëgg jël say bagage dugal ko ci beneen néeg bi bi ci des mooy xam nga lan mooy lakkale ñett ñu ñëw bokk ñoo bokk atte lépp jafe-jafe la kon loi bi bi ñu koy indi man fekkee naa maa ngi woon ci biir ndax bokkoon naa ci ñi nga xam ne ñoo doon xale njiitu réew mi maa doon directeur de cabinet chargé des questions politiques waxtaanee nañ ko yooni yoon te conseil mais dara ci calcul politique lalu ko woon. xam nga politicien rek mooy mën a wax ne diw lii muy def day politique. homme moom. moom moo ko mën a wax dama ne. d'accord un homme politique mooy wax ne diw. Mhm. li muy def calcul politique la ciy wut. ji nga gouvernance ci mhm. li ma foog euh, ñi ko xam ne ñoom la yàlla jox ndombo muy. ñu ñuy fal am légitimité am légalité parce que fal nañ leen ci yoon. li ñuy doxal damay jàpp ne programme bi ñu tëral nii lii laa bëgg a def. cinq ans yi bu jotee wala sept ans bu fekkee loolu la. ñi nga xam ne ñoo leen faloon ñooy seet ndax méngóo na ak lii seen njëriñ wala déet. man foofu laa koy wékk bi ci des. Mhm. ci foofu lay mujjee. Mhm. ndax amoon na consensus. waaw waaw bu large. quelque parti politique ñoo contrôle eh, mun moo sax parti quelque personnalités politiques ñoo contrôle parité bi ñàkkul pression wu. jigéen ñi la woon. ñàkkul ñoom tëb mais bu amoon consensus li ñu dégg nii Touba dinañ ko fa dégg. consensus nekkul unanimité consensus mu ngi tudd accord général de volonté maanaam ñi gën a bëri nangu ni lii baax na te loolu moo am ci loi bi mooy benn bi ci des mooy ndax consulté na kilifa dina yi oui ki nga xam ne moo jiite woon communauté boobu président de la république départ na fa dem na fa yebal na fa ministre bi doon toppatoo affaire famille waxtaan ceeg moom man xam naa fekkee naa. sëñ boobu xalif boobu lan moo doon position ci li nga xam ne moo doon parité bi ñàkkul jamono moo wutee ensuite Touba nekk particularité ñàkkul tam ki nga xam ne moo doon kilifa jamono yu foogoon na ne li ñuy def kat mën na bañ a yegsi ba Touba foogoon na ne ci Sénégal rek lay yem ñu yaakaar ne Touba comme dafa am maanaam particularité lépp lu ñu fiy def ñoom mën nañ cee mucc parce que muccoon nañ fi gendarme du fa dugg muccoon nañ fi ci douanier du fa dugg muccoon fi kenn du fa tox muccoon fi kenn du fa naan sàngara fi kenn def yooyu foogoon nañ ne peut-être yenn yi aussi du fa yegsi. d'accord jamono mooy dox. Mhm. bu jamono doxee ba yegsi fi mu yegsi. Mhm. ñun suñu rôle en tant que classe politique ñun ñi nga xam ne dañ wóolu di ñu dénk réew mi. Mhm. en général li ñu war mooy ñu taxaw def seetlu bu ñu defee seetlu. gën a jàngat seet li baax li nga xam ne mooy tax réew mi ne dal lan mooy tax réew mi tegu ci yoon te ñu teg ko nag ci sart yoo xam ne bu ëllëgee. du yëngal suñu réew mi nga xam ne ñoo ko tabax. ñun ñoo ne république lañ bëgg. président Macky Sall créé parti tuddee ko alliance pour la république yaakaar ne république am na lu sooxee c'est vrai que république bi ñu am nag dañ ko jël calqué ko ci république tubaab yi ñuy bàyyee ñàkkul dañu waroon tabax suñu république boo xam ne ñun. Mhm. dañ ciy dugal li nga xam ne mooy suñu spécificité locale mooy suñu conviction mooy suñu ay valeur kon dina tax bu boobaa tey lu mel nii bi amee wala bi ñuy defee élection euh, législative ba taf ay député xam ne ñu ngi jëm ci élection locale mun naa jur ci coow président Macky Sall fekk na fi loi loi dañ koy changer moom wax na loolu. loi bu amee ay dañ koy changé mënoon na peut-être ak gouvernement am ne tiens maa ngi jëm ci élection locale Touba particularité yi la Touba nar naa ko def commune xaaral ma xool naka lay def ba Touba lii nga xam ne loi la du fa am jafe-jafe d'accord loolu aussi bokkoon na loo xam ne manqué na peut-être mooy vision mooy manqué na ci voilà ndax euh, euh, le ministre ànd nga ak moom ci loolu mu wax ci manqué de vision boo xam ne sa gouvernement am na ko waaye itam nga tegal ma ci euh, monsieur Cissé wax na ko ci ci ñàkk waajal ay loi yoo xam ni ñàkk ko waajal ci consensus ak xool bu baax a baax parce que loolu itam ñi ngi koy jiiñ li nga xam ne yaa ko yor tey muy décentralisation bi ñàkk waxtaan ñàkk xool lan la mën a jur lan nga ñu mën a wax ci ci loolu. bon d' abord li may wax mooy euh, j' espère que waxul ne ñun amuñu vision dafa wax rek de manière générale mais accusé ñu dafa wax euh, benn pratique générale boo xam ne peut-être noonu lañu war a doxale mais dégguma ci waxam ne dañu manqué vision euh, du valeuru république bi ak li ñuy partagé ak valeur constitutionnelle ñoo nekk en cause defe naa benn loi la jël en 2010 teg ko loi boobu ñu appliqué ko sur le plan national et sur des élections nationales te amul benn problème loi boobu pour la première fois ñu koy appliqué Sénégal ci élection locale mu am problème ci benn localité dama ne la contrainte la man dund naa ko bon peut-être que moom il a eu beaucoup plus de chance am na ay responsables femmes d'envergure yoo xam ne mënoon leen investir mais ñu ngi nekk dans les localités du monde rural ak yooyu xam nañ ne am nañ problème yu métti métti des fois da ngay bëgg a benn femme mu ne la non man bu ma désigner su ma càmmiñ bi mooy rek kàddu kër gi dugal ko ci liste bi bon léeg-léeg nga bëgg a génne pour modifier booy modifier tu as une contrainte parce que mënoo modifier jigéen jigéen rek nga koy modifier góor góor rek koy modifier et cetera donc il y a eu des contraintes hein, mm -hmm. dans maintenant li ñuy wax mooy dañuy évaluer xam nga lu lu xew rek lu bees am nañ lu loi parité idéale la parce que c'est un autre niveau d'égalité benn benn benn niveau supérieur d'égalité la boo xam ne nii vraiment dangay ngay utiliser euh, benn démarche de discrimination positive pour pour pour femmes yi mun a bokk mun a wax seen kàddu parce que booleen leen bàyyi ak ñoom rek peut-être bu xante xam nga femme du ñu revendiquer li tax ma ne beneen contrainte la mooy gis nga góor ñi. responsable góor ñi ñoo dàq revendiquer nekk ci liste que jigéen booy xool les taux de contestation présence su liste mhm. gi góor ñi ñooy gën a contesté que jigéen rarement ngay gis jigéen bi conteste pourtant dañuy muyal a maillot nekk ci terrain bi ñooy mobiliser ñooy animer ñooy def lépp donc problème de comportement d' ordre social la ou d' sociologique léegi def nañ loi bi gis nañu ne effectivement am na benn problème problème bi mooy am na dëkk boo xam ne c' pas dëkk bu tuuti c' est le moindre sur le plan de l'influence politique sociologique culturelle culturelle même euh, dëkk bu mag la nag quand même assez représentatif du Sénégal te xam naa ne aussi man ci sumay jàngat parce que dem naa ci localité yu bari fief religieux yi ci mel ni Médina Gounass euh, appliqué nañ ko mais à leur manière <laughs> à leur manière lañu appliqué parité bi donc euh, te nekkoon na lu diis si ñoom donc li ñu war a wax mooy bon est-ce que kon finalement loi parité bi dañ ko war a appliquer ci élection locale après ñu def ci ay jàngat xool est-ce que dañ ci war a modifier parce que loi mënoo tëb rek di ko modifier noonu. Mhm. loi la bu ñu voté loi boo koy voté d'abord ci li ma d'accord ak ak Barka dafay nekk benn nécessité Sénégal nag moom dañuy ñëw kenn pensé benn affaire ñëw appliqué ko pensé boobu rafet na mais dëppoogul peut-être ak. niveau d'émancipation société bi mais comme yow rafet na ci sax xalaat ak yooyu da nga koy ñu imposer man du ma ne sax électoraliste parce que terewul 2012 bi ñu ñëwee euh, femmes yi dañu voté massivement Sénégal voté massivement pour kii ko mais xalaatam bu rafet la parce que idéal la idéal de société la nit ñi di bokk di waxtaan mu bañ am discrimination mu bañ am xàjj seen ñi nga xam dañu faible ñu valoriser leen comme les couches vulnérables nga utal leen politique spéciale pour ñu mën a nekk au même niveau loolu loolu discrimination positive la donc gis nañ ko tey ci élection locale man sentiroon naa aussi ne ci élection locale bi dina am tuuti problème parce que def nañ tournée am na ay fief religieux yu ñu dem am na ay observation yu ñu defal. effectivement demoon ngeen ci ba Touba. Euh, dem nañ Touba dem nañ Medina Gounass dem nañu dem nañ ci dëkk yu bëri. pour pour mhm. waxtaan ak ñoom wax leen lan mooy réforme bi et cetera. léegi am na problème euh, donc ça veut dire que loi man li ma la wax léegi ci njalbeen suma waxtaan. loi dañuy ñëw pour am benn politique bu muy indi. politique boobu loi di indi. à chaque fois que dëppoowul ak nit ñi koy appliquer ni ñuy dundee. Mhm. day am conflit. ki nga xam ne parce que nit ku nekk dafa am ay valeur moom au delà xam nga loi day ñëw ci après constitution après arrêté après décret nangam na noonu ñu koy ordonnancé nit noonu lay ordonnancé ay valeur am ak ay principe ngëm dafa ëpp doole souvent loi parce que nit ki li mu gëm di ci takk ay sëyam mooy diineem di ci def njabootam. Mhm. di ci bâtir ay relation di ko dundee de manière globale. di ci léemu di ci léemu di ci def lépp. Mhm. kooku boo ko buggee ne ko loi bi mooy ñëw tegu ci sa kaw ngëm-ngëm souvent day indi problème boo gisee code de la famille bi. Mhm. loolu moo ko indi. Mhm. code de la famille Sénégal dañ ko togg ba nga xam ne euh, ku ci nekk da nga ciy gis sa bopp. ni ñuy takkee sëy yi ci diine. Euh, ak ni ñu koy takkee ci tribunal ak yooyu ak ni ñu koy takkee ci catholique yi ak ni ñu koy takkee dañ ko dañ ko def ba nga xam dafay mhm. uniformiser loolu moo ñuy manqué ñun souvent sunu loi d'ordre social yi war nañuy gën a xoolaat effectivement di ko gën a ba nga xam ne ku nekk di ci gis sa bopp balaa ñu koy appliqué parce que bon souvent ça pose des problèmes alors Barka yow parité mën nga wax waaw peut-être parité absolue maanaam intégralement xëy na loolu moom moo la gêné wala wala lan nga ma mën a waxaat ci loolu nee naa la principe bu rafet la. généreux la bépp nit boo xam ne yàlla sàkk na la ci suuf waroo bañ ko jigéen mu am ay ay avancé waaye li ma waxoon rek laay bamtuwaat principe mun na généreux ci application mu indi ay jeexi jaax xam nga lu tax ma lay wax loolu. Mhm. nit warul euh, dañ naan il ne faut pas aller plus vite que la musique. ci ci tubaab France bi nga xam ne ci moom la ñuy euh, imiter suñu suñu république. lu bari ci ñoom ci dañuy xool ñoom lu ñuy doxalee ñun ñu jëm ko mhm. appliqué. Mhm. France 1948 la jigéen commencé am foofu droit de vote 48 1948 loolu yàggul ci ci histoire yàggul te lan moo indi ñu tere woon euh, jigéen ci fële en France ñuy voté dañu jàppoon ne jigéen ñi dañu nekk sous l'influence de l'église que jigéen ñi comme ñoom ñooy dem ay mees suñ demee mees lu leen labbe bi di wax foofu loolu la ñuy jàpp te labbe bi fi mu bokk dañ jàpp ne c'est la droit historiquement dañ jàpp ne église c'était la droite en France mhm. donc le tous ceux qui sont de gauche ils se sont longtemps battus pour que jigéen ñi bañ am droit de vote waaye jamono moo ñëw euh, situation changé lan moo ko changé taxawaayu jigéen ñi seconde guerre mondiale bu ñu gisee jigéen ñi lu ñu taxawee foofu lañ ne ñi yellool nañ ñu jox leen mhm. droit de vote France et même foofu parité absolue biñ ko fay appliquer dañ ko def par proportion ci ay principe bu ñu njëkk a ministre jigéen France ay 74 la yàggul ay Simone Veil lañ fa nommé woon et mais ñun dañu sauté étape yooyu yëpp expérimenté ñu loi bi par ay étape ñu daal di ñëw rek daal di jël benn parité absolue mu indi fi problème yooyu noonu. Mhm. am na dëkk bu ñu gën a avancé en matière de parité soo demee Rwanda 63 pour cent euh, parlementaires yi ay jigéen lañ mais loolu lan moo ko fi indi c'est parce que c'est le génocide. góor ñi presque guerre bi da leen jeexal ñoom ñëpp ñu jox jigéen ñi doole bu bu am solo. Mhm. dëkk sooy bâtir ay loi da ngay xool par rapport ak contexte bi nga nekk nga dox ci ay jéego demee ci ak xel loolu mooy tax ngay mun di jubbanti di mun rectifier mais parité kenn waru ko mun bañ dañ ko dañ ko war a encourager. Mhm. mais euh, loi dañ koy appliquer de manière intelligente parce que man tey euh, soo déggee ministre de l'intérieur mu daal di waaf. parce que noonu lañ ko mun tuddee. valider loi bi mu euh, valider loi bi de Touba. Euh, ci xel. Mhm. Euh, c'est pour wut jàmm ci réew mi. Mhm. mais sur le principe républicain képp koo xam ne da ngay dox ci principe wala ci ay droit da lay da lay gêner et réglé wul problème bi parce que problème bi dañ koo esquiver beneen élection dina ñëw. wala beneen situation dina ñëw ñu bàyyi fa noonu pour bañ coow. wala affaire yu mel noonu ndaxte jàmm moo gën ci réew mi. Euh, kilifa diine yi dañ leen wormaal dañ leen jox doole te loolu yoon la. Euh, lu ñu loolu lu ñu war a sàmm la. parce que ñoom ñooy régulateur société yi. Mmh. Euh, société bi moo ñoom ñooy fii suñu kilifa ku nekk am nga foo bokk am na foo loo gëm. Mmh. mais état buy reculer du reculer su yàggee y a problème. Mmh. parce que problème bi mooy état bi moo yore suñu kaaraange ñun ñëpp. moo yore sa kaaraange moo yore bu ministre Youm moo yore bu ministre Babacar Gueye moo yore bu Fadilou principe républicain loolu moo tax ñu kii euh, ministre bi dafa jóge jógee man Kaffrine kii jóge Caajaay man ma cosaanu Fuuta euh, yow Pape Ngañ nga cosaanu Cilmaxa mhm. Fadilou loolu moo tax ñu nekk ci république mhm. loi bi mooy suñu kaaraange ñun ñëpp kenn warul bàkkoo état di reculer wala wala du dellu ginnaaw donte. Mhm. wut jàmm lañ ci lañ ci lañ ci jublu. parce que loolu la ñuy ñaan yàlla yàlla jàmm bi yàgg. Mhm. mais dañu war a am ay consensus républicain fort. république bi mooy li ñu boole ñun ñëpp. d'accord te dañ ci war a bokk ci dignité. voilà merci beaucoup Barka Fadilou ndax dégg nga Barka li mu wax ànd nga ci ak moom ndax jàpp nga ni ñàkkoon a valider liste Touba bi ni mu waxee ni noonu la ministre bi waafee mënoon na indi problème ci réew mi ndax jàppoon nga loolu waaw ndax euh, d'accord naa ak moom. Mhm. ci ne dafa am ay xalaat yoo xam ne ak waxtaan woo xam ne dañ ko war a séq depuis ñu jël suñu indépendance ba tey. Mhm. te boobu ba léegi dañ koy daw rek mooy république bi ñuy wax lan la ñuy sol si biir état de droit bi ñuy wax ñun lan la ñuy sol si biir. buñ nee laïcité lan moo dugg si biir parité naka lañ koy naka lañ koy euh, joxe sens donc yooyu mu nekk ay ay concept ay principe yoo xamante ne nii mm-hmm. euh, ñun dañu bi ñu jëlee indépendance dafa mel ni dañ dem rek jéggaani ko nañ ko ñawee foofu rek ñu jël ko bëgg ko ni sole mm-hmm. te tolloowu ñook yooyu nga xamante ne nii foofu lañ ko tabaxee foofu lañ ko ñawee bu ko defee boobu ba léegi. depuis hmm. ñu am indépendance ñi ngi euh, rek di daw di daw xalaat bi rek ba nga xamante ne nii tey jii man dama ne loi sur la parité bii ak liste paritaire ou non paritaire bu Touba bii pour man baaraam la rek dafa am lu mu ñuy joxoñ lim ñuy joxoñ mooy lan mooy ñu dellu si si question fondamentale yooyu nga xam ne depuis indépendance ñi ngi koy daw rek. kenn di ko nëpp nëppal. muy lan muy muy mooy li ma wax muy ndax ñun bu ñuy construire suñu mm. état ndax diversité bi am suñu biir uute gi am suñu biir si gox yi wala des fois sax si si si si si si si communauté yi. Mm-hmm. ndax loolu dinañ ko ñun euh, tenir compte si ni ñuy tabaxee suñu état si ni ñuy tabaxee suñu loi maanaam ndax dinañ fexe ba lëkkale. wuute gi am suñu biir ak bennoo gi ñu war a bennoo mhm. naka lañuy àndee donc muy articuler unité ak diversité question yooyu euh, dañ koy éviter depuis les indépendances tey nag lii daf ñu ko indilaat moo tax bi nga xamante ne nii euh, conseil des ministres communiqué ba en 2012 en juin 2012 wax na ne euh, président ak gouvernement bi ne jot na ñu xalaat ci statut particulier wala statut spécial pour Touba. ndax na dëkk ba di màggee ak euh, li mu toll ci Sénégal jot na ñu xalaat ko xam nga kooku kon foofu il faut le diir président moo am xalaat bi wax ko loolu nag il faut le diir courage politique la parce que la doon nëpp nëppal boobu ba léegi. moom au moins si communiqué boobu teg na ci loxo. ba pare dellu siwaat màggalu Touba feddali ko ne statut Touba boobu war nañ ci wax war nañ ci wax war nañ ci xalaat war nañ ko tabax. te pourtant ku ne xam na ne bu fekkente ne tamit amul statut spécial boo xamante ne nii. ci kayit si kayit yi la signé nañ ko bind ko ñëpp xam ko. Mhm. ku ne xam na ne dëkk ba na muy doxee. waaw. dafa spécial. waaw am na am waaw dafa spécial. Mhm. ndax am na ay éléments yoo xamante ne nii maanaam Touba xaw na ca wéet. Mhm. loolu nag boo ko xoolee bu baax dafa am loo xamante ne nii moom la war a am comme conséquence maanaam boo xoolee dëkk boo xamante ne nii tey jii ndax bu ñu jàppee rek li nga xamante ne nii critères yi nga xam ne moom la président ak gouvernement bi wax mu ne na na dëkk bi di di màgge rek nga xool dëkk boo xam ne. 1958 daanaka ay trois mille habitants la amoon maanaam di ab village tey jii ñi ngi naan entre bu fekkente ne am na sax werante ci kii bi ñi ngi naan am na ay 1 million 500 mille 1 million cinq cent mille personnes euh, ñii ne euh, gën na ko néew mais lu mu mënti doon xam nga ne mhm. euh, taux d'évolution boobu. nga mhm. xamante ne ni entre 1960 ak léegi. nga jógee euh, village boo xamante ne nii mille personnes la woon. Mhm. tey lu mu néew néew nga mën a ne am na un million de personnes loolu du loo xamante ne nii lu ordinaire la. dégg lu ñu war a bàyyi xel lu ñu war a bàyyi xel la. Mhm. d'accord donc euh, allez mhm. waaw donc mu am tamit ay statut ay éléments de statut spécial yoo xam ne dafa am. ndax ku ne xam na ne depuis Touba nekk Touba euh, communauté rurale bi ñëw fa. en 1976 ba léegi election yi ni mu fay demee Touba rek Touba rek lay demee noonu. list bi xalif bi moo koy def. waaw d' accord c' bon xam naa dinañ ñëwaat ci loolu. Euh, monsieur Gaye Babacar. Euh, dégg nga barka ci moom lay rebondir moom mu jàpp ni euh, ministre bi dafa waaf muy le ministre de l' intérieur Abdoulaye Daouda Diallo ci valider li nga xam ne mooy list bi bu ko deful woon leneen mën na am waaf nga ko gisee wala lu normal la. bu fekkee daf ko def munu ko. waaw maanaam bu fekkee dañu nekk ci réew moo xam ne yoon moo fi dox. munu ko du sañ-sañam. xam nga ñaari notion dañ leen di jaxase te bokkuñu mooy république wax na ko. ñun ñoo nangu ne ñoo bëgg ànd bokk nu ñuy dundee partager yenn valeur. kii jógee mm, maanaam mbuur. kay jógee Fouta ñu jógee Casamance euh, Fouladou. man ñu jógee Mbaaxol Kaffrine ainsi de suite. ñu ne ñun dañu bëgg nekkatuñ suñu tund yooyu ñu yoroon dañ ko bëgg a dajale def ko mel ni réew moo xam ne ñoo bokk nañu gisee. Mhm. bokk volonté de vie en commun. ñu ne ñun dañu tudd république mënu nañ tudd principauté mun nañ tudd maanaam genre royaume mun nañ tudd leneen te du tere état de droit di fa dox maanaam république ak état de droit pour man bokkunu ñi nangu ni danoo bokk nekk en république mën nañu organiser comme ni ñu ko waxee ay espace particulier yoo xam ne mën nañ ko tuddee euh, benn communauté bu am statut particulier mën na dëkk ñu defal ko statut spécial gis naa ñu tudd bay tudd ay Valle d'Aosta di tudd ay Monaco di tudd yeneen i principauté du mhm. tere loi bi dox France wala loi bi dox Italie mooy dox ci principauté yooyu ji nga état de droit principe yi car na ñoom du ma bàyyi ma fen kii juriste la bi ci jiitu mooy ñi nga xam ne ñoo yor nguur gi di ko doxal ñoom dañu war a tënku ci yoon donte dañu am puissance boo xam ne seen légitimité ak légalité moo leen ko jox tënku ci yoon mooy comme ni ko ministre yi mu waxee constitution dafa am loi dafa am décret dafa am arrêté dafa am circulaire interprétative boo xam ne day créer droit dafa am yooyu bu fekkee pare nañ ci képp ku nekk ci bi nga xam ne ñoo ko bokk ñu tuddee ko yoon yooyu dafay tegu sa kaw. Mhm. loolu mooy li nga xam ne mooy yoon li nga xam ne moo fi nekk muy situation bu cocasse Touba defar nañ fa liste c'est vrai ñëpp a ngi ko tuddee liste marabu bi dañuy jàpp ne moom mooy question morale bi mais man gëm naa ne sëñ Sidi Maxtaar yal yàlla yokk fanam ak leeram ak léppam ak darajam du moom mooy toog naan liste bi nii laa koy bindee. Mhm. consensus bi am na ci parti politique yi pour kenn du fi présenter beneen liste. loolu loolu mooy consensus nag kooku ñëpp d'accord nañ ne consensus national am na ci Touba benn liste mu fay am. mën naa légal pour yow. mooy mu respecter condition légalité yi nga xam ne moo nekk ci état de droit muy la loi léegi comme loi boobu parité waaw parce que dañu ne liste bi n'est pas recevable bu fekkee respecté wul parité te loi boobu kenn abrogé wu ko maanaam moo fa nekk en rigueur ne ma ministre bi ne na wala autorité sangam ne na dañ koy valider mënuñu ko valider ñoom wala buñ ñu ko valider acte bi ñu koy valider du méngoo ak respecter état de droit parce que gis nga dans un état ñi nga xam ne ñoo les sujets de droit moo xam personne morale la moo xam personne physique la ñoom ñëpp ils sont assujettis au droit un deuxièmement sécurité juridique bi état de droit moo ko mën a troisièmement tribunaux yi nga xam ne ak justice bi ñoom ñoo war a réguler pour puissance publique bu fekkee ne tegul ci yoon ñu mhm. delloo ko ci yoon mhm. loolu c'est dans le principe général ñu waxtaanee ko particularité am na problème am na problème bu amee rek dañ ko def solution mhm. jàpp nañ ne solution bi mooy tey ñu ne dañuy jalgati yoon valider loi bi wala dañ koy invalider mu jur comme ni koy waxee éventuellement problème mais lu loolu rek mooy solution. lan lan nga jàpp mu mën a nekk. du loolu rek mooy solution. xam nga acte de la décentralisation. mu mhm. indi communalisation intégrale ba Touba nekk commune. ci biir acte bi jël nañu loi yi nga xam ne voté nañ ko avant dont la parité ñu waroon ko sumbaale ci mbir mi constitution bi ñu am ñu tënk ko ci créer benn loi cote des collectivités locales code général des collectivités locales teg mais man dama xam ne nañu waxtaan nañ jël temps bu ñuy waxtaanee bu yàgg ci dal bañ a xëccoo solution lañ la laaj li nga wax maa ngi ci lay jëm loolu mooy indi solution bi li ma lay wax nii. <laughs> Ah, dama ragal nga delloo ñu ginnaaw. de pas du tout. parce que fi ne def ni këtti ni jon. waaw lu ne këtti ni jon rek. li muy mhm. jur mooy. waaw. di nga waxtaan ci sérénité ci dal. muy mhm. indi am solution bu baax. d'accord boo jisee ma ma ma dellu foofu ci gannaaw c'est pour wan la ne lépp lu ñu def ci. yàkkamti def ko danga bàyyi loo xam ne muy gën a bëri ci loo xam ne ay erreur lay doon mu waxuma ne boo yéexee doo bàyyi erreur de mën nga yéex am erreur mais day gën a tuuti. mais erreur boobu ban responsabilité ngeen ci am yéen mais respons ñun entre nous depuis 2012 ñun amatuñu responsabilité gérer la chose publique. d'accord non ci loi bi rek loi bi je termine la wax li may def. dinaa fa ñu jëm pour man. xam nga li ma lay wax nii. Hmm. man la concerné parce que sénégalais laa. li xew Touba daf maa intéressé. parce que man bokkuma ci ñi nga xam ne dañu yaakaar ne Touba ñoo ngi man ñoo yem man sëriñ si nekk Touba bokk ñoo ngi man ay statut conviction ay valeur cër bi ñëpp jox ñoo laa leen jox cër bi ñu jox gunaas jox ko Tiwaawan cër boobu la ñoo ñu am maanaam mooy cëru ay kilifa diine am na lu ñu am ci réew mi kon bu loolu amee situation yu mel ni bu yegsee war na ñoo mën a seet naka la ñuy sauver suñu république ak suñu état de droit mais naka la ñuy sàmmee aussi li nga xam ne mooy njëriñu benn solution mënoon na nekk mhm. benn c'est vrai que waxuma waxu parti waxu citoyen sénégalais mooy wax. bu doon man tey maa nekk situation mel nii mu mu yegsi ñett yëpp naa leen sauvé naka lay def parce que wote pour tànn ñi jiite rek la. séquence la pour la vie de la démocratie. démocratie mooy que société bi naka lañ ko organiser ba mu nekk ci jàmm di dox. kenn ku nekk am yellefam. mais bu fekkee ne démocratie boobu règle yi ñu fi teg bu nar a jur fitna dañ ko naan nëkk ci suuf régler fitna yi door a avancer. d'accord fi ñu toll nii li doon yoon. ci kon report nga ñu bëgg a yóbbu. loolu décision report conséquence su report conséquence su report euh, situation politique ko mën a jur. bu fekkee ne texte yi nga xam ne moom la ñu war a yëpp mat mat na ba tegu ci yoon. Mhm. dégg naa am na ay recours xam ne sax attaqué nañ ko répartition des sièges. d'accord dégg ne li euh, constitution bi ñàkk méngoo constitution mhm. bi ak décret yi ñu jël. Euh, c'est important li may wax. Pape allez-y sama may ma jeexal ko rek ñàkkul da nga gis solution. wax nañu ne texte yi ñu jël. dafa ménguwul ak constitution ci fànn yu bari benn bi mooy euh, lu jëm ci naka la ñuy tànnee ki war a représenter nit ñi ci ville bi muy le suffrage universel. Mhm. ici dañ dañ leen di désigner kooku am na gàllankoor pour man.